bis dafa toog ndeysaan ci jotaay naan ba mu des Ababacar féete ko càmmoñ xale bu tuuti féete ko ndeyjoor góor gu mag féete Ababacar càmm yonent bi ne leen kii day ma féete ndeyjoor te ndeyjoor laay jaare ñu ne ko xale bi doo may sa baay yii comme say maam lañu te xaleel nga mu ne bu doon leneen de ma may <laughs> waaye waaye nabi day duma may kenn nag léegi daal sunu bu baax bi di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am na dénku goo xam ne dénku na ko saabaam yi boole ci ndax moom li mu óoteeg yonente yi ci fànn yu bari la yonent bu nekk ña nga maaseloon jamono lañ lay yónni moom dañ ko yónni ba ila yawm dañ ko yónni ci nit ñi yónni ko ci jinne yi am nañu naan Suleymaan boobu poir amoon na ko Suleymaan ilifoon na jinne yi waaye nag am na différence diggante kilifteefi Suleymaan ci jinne yi ak kilifteefi rasulillah yi ci jinne yi bokkul Suleymaan dafa yoroon jinne yi ci kilifteefi nguur nabee leen yoroon ci kilifteefi yonent kilifteefi nguur bokkul ak kilifteefi yonent nabi rek laa yàlla ma sa yónni ci jinne yi ak ci nit ñi ñu weex ñi ak ñu ñuul ñi masriq ba maxrib keroog bi mu ganee àddina takk grade bi ba ila yawm alxiyam moom rek wax na ci discours bu mu def ak ashaabi ak saabaam yi ne leen ginnaaw bu mu waxee wax bu gudd inna haadi daari daara nawaay laa daara stiwaay ni mu nirolee kër gii di këru àddina maa ngi leen di yéene kërag yàqule la kërag alkande la du kërag noflaay du kërag sakkanal ginnaaw loolu bu munsale pare laa manzali fara wàccuwaay la boo xam ne bii wàccuwaayu njàqare la àddina wàccuwaayu njàqare du wàccuwaayu mbégte ndax maam aadama alayhi salaatu wasalaam bi sunu borom ne maa ko bind maa bind nit min turaabin jamono suma min suma min tiinin jamono am jamono bu mu nekk zalzal jamono nit maa ko bind man yàlla ci suuf def suuf fa ban def ban ba xandeer ci jawaab yi mu nekk xandeer ci laa ci roofu suuf la fat min turaab nëbal ko suuf bu ne bee dafa nekk tiim mu doon binit mooñ ko lakk ko mu doon salzal moo li ban yi sax boo ci bëgg a tabax te bëgg a mu dëgër da nga koy lakk dama ne yàlla na maa bind ki jur nit ñi du nit ñëpp ki jur nit ñi laa bind ci suuf turaab suuf soosu nag tëbuma rek taxawal ko forme ko du taxaw suuf du taxaw boo ko jëlee day tuuruwaat waaye ma di ko denc tooyal ko ba mu nëb ban ban xaw naa mën a taxe ban bi it li muy mën a takk boo ko formé forme nit doo am doole taxaw ma ma ma ma taal mooñ ko ba mu wow ma taal ko mu nekk zelzaal ci zelzaal boobu nag loo fi nabi ne ne fii du kërug noflaay kërug coon la ak yàqoog yàqule du kërug mbégte kërug nitit la ak naqar maa ngi leen di dénk ngeen moytandiku neexaayi namta ga ngir dangari feral ga rasul lay de jamono doo jëlee bakkat beenam bii mama dina di ko maccaat neex ga neex nang la ciy tiiroo sa attention ngir dangar jamu lamboo ci ba sa peral nga si ji maa def ne wa in arakat yowman su tukki bi suratin wala xayra fi lafatin baada lahibu borom borom na xamante ne dafa wax ne indaana yow man li saxsin fa fi xaddin yataqalam fala tasex bi waamidin min darqihi foo waxul mais bu la rekkelee pantan moom àddina nga poroxlu jàll tibba la nga soxla woon dellu si mu ràcc tànk yi nga jàll fa nga déparé woon ba la nga yoroon jeex nga dëgmal ko mu rocc tànkam nga jàll tibb wëlbati ko mu rocc ci tànkam nga dellu fa nga nekkoon ba la nga yoroon jeex daa dellu si mu rocc tànk yi nga na yoxoos mu kepp doo del ku ci xam ku ci xam ñaata ku ci xam ci nun ku ci xam ci nun fii nga toog ñaata suur nga nokki ba mu jeex ñaata suur nga nokki ba mu jeex ku ci xam ñaata mois nga jeexal sàkk ku ci xamati ñaata année nga jeexal tak loolu la jumlo da ngay duggé ak modul dul jeexal ba xey ju ju ci yar woo jeex ba jant fekk tim la bo do fekk sogo mu rek da nga ñu rek ya nga jeexaloon ñaata bu nga daloo mu rap ak jam xamula ko ñaata reer nga reer mu reess ak jam xamula ko ci biir reer yoyu daan reess ci la def bu dul rees ci biir yére yooyu di ràpp ci la def booy daloo ji ñu futti ko keneen sol kuy fugluwante lu day noonu te teggi amul tëb amul jàdda amul fokk rek jaar deret te xam ki dëgmal kañ te àgg gul modi lu ko mën a jural ak lewet boo àggee am déet waa kañ beneen pexe amul beneen pexe amul lu demene li nu nek rasulullah ni inna hadi dar daara dar tawain la dar daar bu munzil farahin la munzil farahin فمن عرفها لم يفرح لرقائها ولم يحصل لسقائها أن الله خلق الدنيا دار البلوى والآخرة دار عقبى فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا حوضا قل فياقظ ليعطى نانا نعم. برم بدف الدنيا bind مثلا bii mu fab nag yoolu àllaaxira yépp di ko weccee koo naqaru àddina naqaru àddina di marchandise am njëgum yoolu àllaaxira mu tàllal la pour mu ne téye sa mu naqaral la pour mën laa fay ëllëg mbégte nee na àddina noonu la doxe maa ngi leen di xamal nag lu tuuti rasulullaay wax de fa yaqudu li yuta wa yabtali li yujza boo duggee ci jàkka nag fekk fa nit ña fekk fa yàlla fekk fa nabi te genn jàkka rek mooy jàkk Madiinatul Munawwara bu nit ñi toogee nga dugg seen biir doo leen faale da ngay julli ñaari rak pour taahiyatul masjid soo salmalee na fi ñu ko nit ñi nabee leen gën a fort dem ba ca rasulullaay naka salaamaaleykum wëlbati ko ñëw toog ci nit ñi na leen salaamaaleykum dégg nga loolu waay dégg la lu ba si lumul nag yoon ne lumul nga xam ne ni yoon respecté nit lumul nga dugg fi ci jàkk ji fekk fi ku gàtt xel koo xam ne jortu nga ci yëf kaw nuyoo ñaawoo yoon ne la yàlla ne na pardonné la nga jox ko loxo te ñëw julli ma sama ñaari rakk man mi xam daatin dooru nuyu ji rasulillah waaye boobu nga te waroon i fagukat bàyyi leen te jukki yàlla dooru jukki keneen koy jukki borom bi wax na Moustapha صلى الله تعالى عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك إلى سبيل ربك بالحكمة معنى بعضا من الناس بالحكمة وبعضهم بالموعظة وعنك موعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أعظم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين بول سلو بول نقلو بكل دي او جان جمالين تي يون دي سبورم خال تي مو li leen di kenn ku ne nag am nañ la war a ooy nit ñu bokk ñu am na ci ñu bari xam-xam am na ñu am ngëm te yoruñu xam-xam am na ñu amul xam-xam am ngëm te mën a werante ñooñu kenn ku ne ak ni ñu leen di lu ngi leen di ooye donc ila sabili rabbika bil hikmati ci ulul ci ulamaaw ulamaaw yi waxantee la ñoom bil hikmati julit yi nga xam ne seen limaan sax na ak seen islam waaye nag àgguñu ci daraja yi aarifiina yi ulamaa wuñ ñooñu na nga waxante ñoom bil mawizati waaye nag mawizati bi na nga ko def al hasanati ñi ci des nag xam ne du ñële du ñii ñooñu wajjaadilhum billati iya ahsan waaw inna rabbaka nag moom huwa ahlamu bi man tala an sabili wa huwa ahlamu bil muhtadi waaw kenn ku ne ni nga war a jëfanteeg moom ak ni nga war a mën a waxanteeg moom ndéem da nga yor loolu wóor na njariñ la moom mu réere na njariñ la nga bëgg mu xam ni nga njariñ la ba mën koo jariñoo fa koy war a mën a jaar du bokk ak fa ngay war a mën a jaar kële du bokk ak fa ngay war a mën a jaar kële kon nag employé yett yooyu yëpp ci doomu aadama yi noonu la doxal itam noonu la rasulullah doxalee si dañ Maalik ne na wa bil ayaati wa bil xasawaati wal ayaati jaaw am na ñoo xam ne jaar ji sax dàq fa ko boo takkee bëgg a rëppoo ñu takk ñu xusi ay jàmbaar yu deegu tooy gënal nal ndox mu sedd boole ko jaas yu ñëw ak ci fu ma am na ñoo xam ne ñoo xam ne ci yëfar yi looloo leen gene gene gene ba pexe jeex ñu am na ñoo xam ne ay alxuraan yu faar yu dal ànd ak i tëkku ànd ak fasaxa ànd ak balaaxa ñaroot ci badia boo xam ne ëpp na taaxatul basariya muy génne ci gémmiñu ko dalul baasin melara di lumi nabi yi lumi ñooñu looloo leen jàpp ba ñu ne kii doxul neen ñu wàcc ñenn ñi nabi da leen di may aleel ba ñuy tiit ne kii du nitub neen dana teral ba nga lam ñenn ñi nabi daal la ko du noonu muy ku rafet dañ ñëw di seetaan taar bi di seetaan taar bi di seetaan taar bi ba foofu lan su ngoonee nga ne ay naa foofu fanaan ba rek bu subaa nga yendu na naa foofu xaar ba ngoon ma gont si daaj maa dina jaawoo wuy si nañu nabi bi xifaasi ngi jiyaar yu toftale ko métti lu demee ne Uhud te ndaay laam laam ñoom ca bani Xuraysata lu demee ni Hunayn ak lu demee ni Tabuk ak Asira yu toftale yooyu deel gi tooy xëpp bani Xuraysata defe naa ne ub leen commencé nañ leen di rendi dix heures ba kenn ku ñu rappel nga dem doo julli seen président di wax ne man day euh, yenn gars yi di wax ne ñu day jaaxle ñu parce que ku ñu woo doo ñëw mooy leen ñoom ñu leen oo doon ñu bu yàgg waxoon naa leen si daaj maa ngi leen ñooñu looloo leen yóbbu jaar ju fa ta tarajjaas yi tàkk ñenn ñi nag laaye alqoxam moo leen indi ñenn ñi kanamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo leen indi naam am na benn benn boo xam ne dafa nekk Abubakar Siddiq nga xam ne wa bi xayrihi wa bi xayrihi zalaba alwara wa liman azabuu nayla xayra marami wa jalaba alwara bi xayrihi wa jalaba alwara bi xayrihi ولمن أجابوا من دون خير ولا خيل نيل خير مرمي نيل خير مرمي سيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه gudd la gént nekk commerce ca fu ñu wax saa weer daaw ci ëttëb mu jóg fekk weer wa ci gént gi tëdd ci wetam ci gént gi fab mbàjje sangu ca sànga ca weeru ba mu yeewoo ciy nelaw laaj ku war a mën a gént ñu yebal ko ci benn labbe ba mu ko nettalee gént ga ba nga ko daf ko ne na tudd mu ne ko abdul kahbat si da bi bëkk di noonu tudd ne sax mu jëla ko tudd abdullahi waaye abu bakri moo siiw nee naa la turu arab boo dégg ñu naan ko abo wala aba wala abi du tuur kinaaya la abo nag dinañ koy wax léeg-léeg dinañ wax aba dinañ wax it abi kem kalaay la féetal loolu gannaaw ko koy yóbbi su dee mubtada mbaa muy xabar mbaa ismu faayil mbaa ñu ajifar ko ci lenn ci yooyu aboo ngay mën a wax ku dee mafool mbaa nga xam ni innaa ku dugg abaa ngay mën a wax bu ko arafu jar duggee mbaa muy jaar ak majruur mbaa ñu ajifal ko ci yooyu abi ngay mën a wax kon abu abaa abi yépp arab dina ko wax téere yaa ngi bi bëkk bi lu tax ñu tudde ko abaa bëkkri ak bikru mooy firi ku jigéen ku sëyagul olof di ko wax jànq ñu daan ko ooye bàyyi jànq bi bàyyi jànq bi ñu ne xëy na li tax tur woowu am moo di rasulullahi sallallahu alayhi wa soxna yi mu am yépp ku ci ne da nga mu door laa jël doomi Abi Bakar rek la ci jël ci ngune juróom ñaaraat la am ñu may ko waaye kat gëstukat yi jiitu na juddu xale bi Ababakar wax nañ ko Abu Bakar te Aïsatu judduwul kon tur du loolu waaye ñu ne ko nag li arab baaxoo kenn ku ne loo jëkk xam na yaa ko jëkk def ñu di la wax ne yaay bàyyi jànqa loo jëkk def rek ñu ngi jiw mooy bàyyi jànqi conférence ci jàppi Arafa diw mooy bàyyi jànqi jëkk nekk xaaji ci tëngéej diw mooy bàyyi jànqi jëkk am oto ci sawlin loo jëkk a def ñu tudde la yaay bàyyab jànqab loolu ñu ne comme nag jikko bu rafet ci diine jikko bu rafet ci diine Ababacar a ko jëkk def ñu fas ko tudde nag baayam jikko bu rafet ci lislaam mooy Aboubacar waa ji ne ko yaa gént gént gi mu ne ko waaw mu ne ko foo dëkk mu ne ko màkkata mu ne ko gént gi boo amee ni nga ko wax yonente dina judd seen dëkk yow yaay doon jaraafam Babacar dem am ay at ñu bi mag toog dégg fa xabaaru ku feeñ ne yonente bi ku bëggoon na jëlee nag bi mu yàgg tuub ko faralu daan te boobu du julli bu ñëwee toog ci wetam rek toog ci wetam rek lu waay wax te mu ñaaw mu dindi lu waaye waaw te mu bon mu défendre ba yonent bi ne ko moo sidee bi bëgg moo Ababacar ni nga mel ci man te du ma mën mukk jariñ la te duggal ci li ma yor du tere nga tàbbi ci Ababacar na ko bañu ma waaye yonent dafa am ak dafa am habitude di wane mu gisatu moo gisatu nag doole lay jóge ci doole yi kiraamatu mu ngi jóge ci teraangay sunu borom toujours boo amee waliyu day coppati ci teraanga jox ko bu yónnee nit nag ngem ba ko day ci kàttan jox ko kàttan mooy mu gëstu mooy def lu kenn ma mu mu gisaat ko amoon na benn bu jaaxaloon ñëpp ñëpp yëgoon na ko saalexa indi woon na fi gileem ñëpp gisoon na ko yonti yàlla yonti yàlla yonti yàlla Suleymaan ak daaxuda daan nañu wéral ku feebar te duñ ko piqûre daan nañu dundalit ku dee boo dee yonente ni ñoom defal lu tax ñu xam ne yonente nga ne biré ne ko Ababacar yow yaay laaj mujiza yow yow yaa 1900 teel ba nga nekkee dëkk teel sangam di def commerce gént la la labbe ba waxoon doyu la ko ashadu an laa ilaha illa allah ashadu annaka rasul mooy wali man ajaaboo min xayri min xayri xayli wala xayri si laaj ma dafa wax am na ñu wuy si nabi ngir teraanga ju bari am na ñu wuy si nabi ngir ragal naari góor yu jàmbaar waat ñu ñëw nag te naari góor indi wuleen jaasi indi wuleen ñooy waram teraanga yu màgge waaw si Abi Bakar ci la alquran bii ñu ko bàttaleel mu indi ko muy suñu téere bu boole xam-xami téere yépp li ci suñu borom tëral ci santaane ak ci tere li mu ci digle ci ku ci jaar mucc li mu moytandikoloo ngir bañ ko si gaañu kenn xamul la mu de waaye nag li ëpp ciy tëkkoom màkkatal mu karama la ndax makka amoon ay yéefar akañ Madinatul Munawwara ay naafeq fa amoon moo tax borom téere yi nee nañu baat boobu ñu wax kala kala wàccul ci Madinatul Munawwara kala yépp Makka lañu wàcc kala yi ci alquran yépp benn na wàcc ci Madinatul Munawwara yépp ñu ngi wàcc Makkatal Mukarrama amul nag benn kala bu am ci xaaj kaw bi daanal bàqara ba ñëw jox la njenge loogu benn kàlla kàlla yépp a diggante xaaj suuf bi la ko ba bi nga ñëw naas ci nekk trente wàll trente ka kàlla yi ci alquran trente trois trente trois ci ci de ndax sunu borom a ngay waxanteeg nit ñi ni mu digal ne bi ëpp ila sabili rabbika bil hikmati noonu la waxee nit ñi kenn ku ne la yàlla yow la lay teg sa kemta lay dégg comme maak moom ay naat ay ay yéefa rek fa nekkoon yu ñuul kukk moo bi moo tax te comme yëpp fa la ko wàcc am na woykat bu woy ni wa ma nasala kala بيشرب بالصعلبة وما نزلت كلا بيشرب بالصعلبة ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى أو وما نزلت كلا بيشعر بالصعلبة ما لا خم اليوم قبل باتك الله بني لم يشعر يجري بمؤمنين nabi moo mujjoon di wax ne bu ko kenn waxatu tur woowu xamuñu woon nabi tax mu tere ko waaye alquran sax prononcé na ko laxasaat ne na yàlla yasriba laa maqama lakum arjo waaye nabi bañoon na ku prononcé tur woowu jëme ko ci Madinatul Munawwara ginnaaw ba mu fa nekk wa ma nafalat kala bi yasrada fahlaman ولم تعتق في القرآن في نله الأعلى kooku yëpp amul kàllaa Medina gépp it wàccu fa benn yoon 33 la nag 33 yi soo leen di wër ci 15 saar nga leen di fekk 15 saar yi waxoon naa la sànq ne saar 14 la 15 yee ci am kàllaa am na ci nag ñun nangu aare. am ci yu nangu déparé kaay am yu nanguwul arrêt nanguwul départ danga koy burule dem lu waral loolu douze yi dix yi trois yi soo ko boolee trente-trois la nangu départ dix-neuf nangu tuwaayee bañ yëpp waaye amu ci benn boo xam ne wàcce ci saar woowu mu ngi mel ni bale bale bale ci alxuraan douze fois rek la ñëw fukki yoon ak ñaar rek la ñëw waaye fukki yoon ak ñaar moom it dañ ko distribué ci fukki saar borom alxuraan nag di la xamal ne yow mi koy déglu ci jëf ji mu ngi ko toftale ci komtelaa yi dégg gi wax bi noonu dafa diis su dul woon yërmande yàlla kenn du ko mën a dégg alxuraan booy door a dal bu ne but day niroog bomb bu dee loolu laa fi amul jàppukaay bu dee loolu laa dafa tàng jiir bu dee loolu laa dafa ñagas di hadis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ñëw fel la ko ba bënn baaraam baaraam mënul dugg ndéem na nga bëgg a yëkkati mbaa mu upp ko ba mu sedd nga jonjoo ndéem na nga bëgg a laal mbaa fexe ba ndir ko yépp dee nga mën a jonjoo ndéem da ko bëgg a laal waaye na mu jóge ca borom bi tabaraka wa nit ñi duñu am kàttan ni mën koo dégg moo tax nag xaraakat yi ak seetkat yi alquran yi wax nañu ne doy na yaakaar ci xeetu rasulillahi ci seen digganteeg seen borom fukki wax yu yàlla wax ak yaar jëme ko ci rasulillahi moom la ñu commencé woon sànq am bi ci jëkkaa nga bàqara bàqara ñaari téeméeri aaya la ak juróom ñetti fukki aaya ak juróom aaya bi ma lay wax nag ca fin la ndax ñaari téeméer ak juróom ñi tasi toog juróom boo cee vérifié nag ba tur ba ci ñaari téeméer ak juróom ñi tasi toog ñaar daanaka jeex aaya baa ngi ci deux cent quatre-vingt-deux digganteem ak alal xawmin kaafirin dafa nekk ñetti aay fii laa yemoon aaya bi deux cent quatre ca mujj la fa yàlla sànni ñu doon jeex